waa ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp rek euh, waxtaan bi ñun la zone ñun ñoo ko sàkku ci diggante ñaari ASC yi nga xam ñoom ñoo war a tase suba muy ASC Kër Patekan ak ASC Jàppoo Olof Njaay nag dañuy xoddi ko balaa ngaa lakkale euh, moom moo tax ñu ñëw def ko fii mairie wax ko la maire maire boole ñu ak ñi nga xamante ne tey ñooy ñaari leet lieutenant yi toog yaakaar naa ni même bu fi maire toogoon tey ñaari lieutenant yi doole ji ñu am moom la maire am benn lañu muy monsieur le maire Lamine monsieur le maire elage Wan bëgg nag dañoo bëgg a waxtaan ak sunu ñaari njaboot yoo xamante ni daaw nawetaan dafee amoon am quelques incidents yu fi amoon ba mu egg foo xamante ni ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ci bopp bi ñu ñaawlu ko lool rafetlu wuñ ko parce que kenn ku ne xam na ni violence kenn du ko cautionné ak nu mu mën a toll nag. moo rendi, ren ji depuis ya ñu démarré yaakaar naa ni fubal nañu su ma juumul match yu bare bari c' est une première ñu toogandoo ak ñaari ASC yoo xam te ne dañoo daje suba kenn ku ne xam na ni football su mënatu la boole yaakaar naa ni waratu la taqale yàlla dogal nag match bi suba daanaka ñaari équipe yëpp qualifié nañ ba pare dañuy xool peut être kenn ku nekk rang bi nga xam te ne yow yaay jël P wala yow yaay jël deux yooyu ci la ñu nekk bëgg nag jàmm ndax nawetaan kenn ku ne xam na ni jàmm rek ci la lépp xaj parce que bëri na zone yoo xam te gaa gars yi commencé nañu aj seen nawetaan parce que préfet yi fi nekk léegi caaxaanatuñu ñoom benn violence bu ndaw rek dañ koy arrêté automatiquement looloo tax nag ñu woote fii wax ni sunu njaboot bu fekkee ne dañoo war a daje suba te ñu ciy am ay jiixi jaaxa wala ak tiit ñun ñi nga xam te ñun la yàlla dogal ñu nekk sa bopp ba war nañoo teel a alerter war nañoo teel a waxtaan ak njaboot gi xamal leen ni bu ñu sañoon suba su ñu ñëwee ci terrain bi présentation ñëpp na joueurs yi àndandoo ñaari équipe yi ñu jaxasoo ba supporters yi teg ci seen bët ba xam ne la woon lawoon ni na xam ne kaf ak fo ak ree moo leen fi indi beneen bi tamit président yi bu ñu demee ca koñ ba nañu waxtaan ak supporters yi nañ waxtaan ak dirigeants yi ndax lu ci bëri source de violence bo xolé ñi koy indi daanaka bo leen laajoon cotisation 5000 francs sax ñu la ko jox té toujours ñom ñoy indi yenn problème yi bu ñu demee ñu waxtaan ak ñom bu baax a baax xamné suba dal li ñu bëgg moy comme match yi fi jaar football que le meilleur gagne ku gagné nga dem saafonteeg sa morom mu jeex tak nga dem président yi ñu ngi leen di bayilo xel tamit les joueurs parce que footballeurs yi léeg-léeg dañuy indi ben source de violence parce que man mënuma d'accord ngay football ak man dugal ma benn bi ba pare nga daw ba ci sama bande tous wala samay supporter nga leen di dafa am lu muy jur nit so dugalee bu la neexee zibileel mais am nga foo mën a jëm ya, say mbokk nga àndal say supporter nga ca côté ba soo dugalee dawal ci say supporter nga yem foofu mais bul dem ci supporter parce que nit mënoo ko dugal tamit xolam tang muy xool nan lay égaliser nga dem di ko saaga boobaa lu fa xew coow loolu yow yaa ko bëgg nañu ngeen ci xel bu baax waaw loolu lañ noon dinañ ko tijjee ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di jéggalu tamit surtout maire yi nga xam ne tey jii weekend mooy seen noppalekukaay muy le maire El ak le maire Lamine ñu leen di jéggalu bu baax a baax a baax vraiment di jéggalu tamit Moussa parce que tey ji ñaari rakkam ñu ngi ngénte fee kër kër Paate Kan mu bàyyi liggéeyam yëpp ñëw donte nag waxtaan bi ñuy def am na beneen waxtaan bu ko jiitu woon boo xam ne chef de quartier kër Paate Kan bi woote woon ko waa jàppoo yi demoon nañ fa directeur école bi demoon na fa lañ fa waxtaane lépp nettali nañ ñu ko dégg nañ ko rafet na trop moo tax ñu ni ñun waa zone tamit du ñu tëdd ba bu subaa ñu ni ah zone de yëgoon na ko mais deful defu ci woon jéego loolu moo waral suñu woote bi tey ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu bàyyi kilifa yi El ak Lamine ñu jël ci kàddu ak ñoom Issa ba ci kanam incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf merci. donc asalaamaaleykum ñu taftal suñu nuyoo ci nuyoo président Alpha Sow nuyu. moom suñu nuyoo di ko jox mu tegal ñu ko ci membre comité directeur zone bi yëpp di nuyu mon frère Lamine Diakité qui est l'homme de seray man loolu laa koy wax parce que fi ñu toll nag lii dooleem ak kattanam moo ci gën a toll suñu yos pour muy man di dem di représenter monsieur le maire di nuyu isa qui est le président de la commission euh, jeunesse sport di nuyu les membres de l'ASC Diapo le président Sané di nuyu les membres de l'ASC Kër Patekan sama turandoo El Hadj Mbaye di nuyu la presse Mustafakan, Kane ci sa taxawaay ci ni ngay jàppale mairie bi ci xibaar yi mu yegg fa muy war di yegg dama wax ci njàlbeen rek man damay ubbil sama rak Lamine Diakité parce que man damay faral di wax ni ku iñaane sa ndono sa deewin dafay ñaaw ñun mënuñoo am dox suñu wàll xañ na jeexagul naam ndax ñun ñëpp même génération la mais am na foo xam ne nag léeg-léeg nga reculer tuuti bàyyi sa rakk ji la déggal te rëkku la nga jox ko moom mu dem te loolu mooy suñu nekk ak Lamine Diakhaté mii kon damay faral di wax ni fu ma toog ak moom su ma joxee kàddu ndax droit d'aînesse dinaa ko ubbil te dinaa ko bàyyil mu dem ndax xam naa ni xam na fu mu jëm xam na li muy wax daje bi li ko sabab comme ne ko seen président waxee man de li ma ci indi daanaka ci moom mii la sàq ko parce que moom la monsieur le maire ab sante absenté nekku fi woo ko ne ko Alpha daf ma saisiroon ni dafa bëgg mu woo ñaari ASC yi jàppoo paatekan ñu daje ñu waxtaan waxtaanu kilifa ndax seen match bi di ñëw jàmm njëkk ci jàmm mujj ci mu wax ko lamin fekk man génn na bi ma demee ba toog ab diir ma déggantoo ak Lamine mu ni ma kon bu subaa nañ fa daje ñu waxtaan ak ñoom foogoon naa sax dinaa tardé ndax Moussa nga ne seen kër laa nekkoon ca tudd ma Lamine bi mayoo fekk na boobu maa ngi ci tudd boobu mais yaakaar naa ne moom lii ñor na ko tax mu bàyyi tuddi rakkam ñëw teew si fii kon Lamine dama wax ni dama lay ubbi rek jox la nga waxtaan ndax xam nga li ngay wax ak ñoom fi nga leen di ñaax jëmale may rebondir ci wax bi nga xam ne Alpha wax na ko léegi tama xam ci lu bari ndax xaj na mouvement bi yàgg naa ci yàgg yoo xam ne léeg-léeg sax coow dina am kilifa yi ngeen xam di ma sollicité sax léeg-léeg pour ñu indi ay àddu ak di wax di jàmm ak salaam Alpha wax na ko léegi la zone de Noto suspendre nañ leen ndax violence zone de Pekes je pense que ni bu ñu leen suspendre ñu ngi ci sous menace la zone de Mboro nag yaakaar naa ni dañ koo mësa tuddee une zone non violence zone boo xam ni amuñu coow bëgguñu coow lu dul dem foo dellu ñibbi kon tey suñ demee ba tey ñu ni Paate Kane jàppoo di ay quartiers yoo xam daanaka benn la woon ndax bu ñu waxee rek dañ naan Moulay Fall fi nekkoon ñu ñëpp nekk ci biir Moulay Fall tey ñu dem ba avancement di am ku ne beru yaakaar naa ni loolu dafa war a mën a gën a yaatu dëkkandoo gi ak jàppoo bi ak xaritoo gi dafa war a gën a yaatu mais xiiroo xaajoo tojante bopp xaju ci may wax ni nawetaan wax naa ko bër ki démb ci sama final ba ma ni leen baaraam bu foxaj sax xajul ci nawetaan waxuma ak bopp bu toj ak bakkan ci ñoo xam ne ay doomu ndey lañu ñoo bokk fu ñuy dëkk ñoo bokk fu ñuy ñibbi bu ngeen àndee dem teena yeneen ànd dem su ngeen di ñibbi si yéenay ànd kon nag nañ ko rafetal man de dama doon wax naan si euh, euh, euh, président le maire Lamine tey jii man de su yàlla defoon ma am les moyens fii damay jël engagement ne leen ñaari ASC e yëpp di regroupé ci benn lieu ànd ak ñoom jiital leen yóbbu leen stade ñu foo joxante loxo ku gañe ñu xam ne yàlla gañe ñu àndaat ñibbisi ci koñ bi mais loolu mën nañ ko initier wane un exemple boo xam ni tey jii képp ku gis ne Mboro la fa xew jàmm rek moo fa xew ñaari ASC yuy football ànd et vous mettez toutes les considérations mystiques bu boobaa dañ koy teg ci côté bi parce que boobaa dañu naan ay doomi ndey ñooy football ay xonk loolu lépp duma ko ci génnee dañuy dem ñu nekk toogandoo lekkandoo naanandoo ànd dem ci terrain bi football ki yàlla def mu gagné mu gagné ñu àndaat ñibbisi kooku c'est un exemple boo xam ne tey su ko Mboro réussiroon je pense que ni di ngeen ci yee àdduna bi yëpp ci en matière de nawetaan man nag loolu laa leen di ñaax na leen violence yi nawetaan amu ci place amu ci place def na ni ngi football bay jeexal dimbali leen seen bopp dimbali maire dimbali alpha dimbali waa dëkk bi dimbali wa juri xeex bañ am xuloo bañ am jàppante bañ a am ŋaayoo bañ am ànd dem football le meilleur gagne ñu mer ñibbisi maire lamine

su ko defee ñi nga xamante ñu ngi seetaan xam ne kii kat engagement bu mu jël ci xol la ko nekkul engagement boo xamante ne dafa génn juste ci ci làmmiñ mu am nag loo xamante ne moo ñu boole ci wàllu nawetaan moom li tax jóg defe naa ne foo la foo moo tax jóg mu am loo xamante aussi moo ñu tënk mooy cëslaay wa mooy li nga xamante ne ñun coog ci loolu la orienté le maire El ñooñu gën a xam yooyu muy lépp jëm ci wàllu règlement wax la naka la ñuy defee newetaan naka la ñuy organiser naka naka naka naka lii sax dafa war a nekk lu naturel pour man waxtaan warul nekk loo xamante ne dañuy xaar ba coow am pour ñu def ko mais dañ ko war a boole sax ci ni ñuy programmer match ni ñu programmer match noonu lañu war a programmer ay waxtaan yoo xamante ne dañ dem ci njaboot gi waxtaan ak ñoom mën na bañ a nekk ci wàllu violence mën na nekk yeneen thématique def ay ne activités yu boole nit ñi la donc dinañ dem ba lépp lu luñ bëgg a moytu daañ ko mën a moytu en tout ñu xamal leen ne mbooro mu ngi leen di seetaan mbooro ñu ngi leen di xaar waa Kër Paate waa jàppoo aussi mbooro ñu ngi leen di xaar kon amuñu droit à l'erreur amuñu droit à l'erreur d'autant plus que suñuy njaboot la ñuy nekkal suñuy doom la ñuy nekkal waa Kër Paate Kan suñu gaañee waa jàppoo si ñoom ñoo leen di faji après waa jàppoo suñu gaañee waa waa Kër Paate mais waa jàppoo ñoom ñooy dem faji leen après kon benn famille bi la xeex xaju fi violence xaju fi dara je crois que bi naturel en tout cas mbég am nañ quand même euh, président Alpha ak euh, la presse bi mu fi euh, ne suñu paré ci waxtaan bi normalement xol yi dina gëna ñëwaat yi dina ñëwaat yi dina comme le président Alpha wax na ko ko ànd ak nit ñi ginnaaw bi ñu ko wane tey suba dañu ko wane ci terrain bi ànd ensemble wax ñu kiyandoo ensemble duggandoo terrain ensemble jàppandoo seen i loxo voilà donc public yëpp tàccu ñu xam ne lii li fi seetaane bu fi jaaroon la mais jeex na en tout cas kaddu gi du bëri ñi ma jiitu muy le président El su waxee moom presque ak Lamine defe naa ne wax ji mënoon na ferenkulaayu président euh, Alpha wax ji mënoon na ferenkulaayu waye comme ñun aussi yalla def ñu dénk lépp jëm ci walu texte ak yoy baxna na quand même ñu yëkkati ci suñu kàddu xam ñun suñuy tënku aussi ni dañuy tënku ci li nga xamante ne moo di wàllu règlement di walu RG bi nga xamante ne mo moo moom moo organisé lépp jëm ci walu nawetaan donc comme niko le président euh, monsieur le maire waxé rek dañuy bayyi ak président yi tay ji ñun ñun ñom sax lañu war déglu déglu le président de l'ASC Kër déglu après le président de l'ASC Japo ñu jël ay engagement ci kanamu njaboot gi ci kanamu ñi nga xamante ne moo di journaliste yi mag yi fi ne voilà donc président kàddu gaa nga non asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp kenn ko ne sa tur ak sa sant di nuyu président Alpha Sow la zone de mbooro di nuyu tamit monsieur le maire El Hadj Wan Lamine Diakhaté di nuyu grand Sané grand El Hadj Cissé Cheikh ba si sama mbokkum la ak Baye Laat di nuyu ñëpp tamit ak waa fii ñëpp daal ñëpp ñu fi toog ak sama grand frère bi nga xam ne mooy Moussa Fall sama kilifa xëy na sax dafa mënut a ñàkk ma wax rek mais kon du ma wax dama koy bàyyi ak parole bi. mais yaakaar naa tamit comme li ñuy wax rek ñaari ASC yi xëy na ki xamul mooy indi chaque jour violence ak ñi nga xamante ne xamuñu lan mooy dëgg-dëgg njëriñul ASC. mais ñun ñu ko xam dëgg-dëgg di jël suñu alal di ko si def di si def suñu temps di si def suñu lépp du ñu dem ci di yàq match amaana nag ki koy def nag mooy seen deret day tàng léegi-léegi mais yaakaar naa ne ñun ASC Kër Paate Kante ren bi nawetaan commencé ba léegi ñu def benn réunion Moussa Fall mën na ma seede du réunion bureau du réunion dara lépp dañu doon dem noonu di liggéey di noonu mais bi mat si jàppoo joleeg léegi sama kër woote nañ fa première réunion bureau yaakaar naa ne keroog Moussa tey mën na ma seede dama ko bañ sax ba ni bépp dirigeant lépp loo xamante ne luy yee fitna la bu mu jógee si sa làmmañ parce xale bi nga xamante ni mën nay déglu boo waxee rek mën na jël loolu mu jëfee ko biñ demaatee réunion générale si mbedd lañ ko doon wootee mais keroog tamit dama ma ko wootee ci mbedd biir kër ñoom Abdou Kane bu waay Serigne Kane laa ko wootee ñu tëju keroog tamit loolu li ma waxaat réunion bureau loolu laa waxaat dañu jëm si match boo xamante ne ñaari ASC yëpp na nga ni waroon a fekk kenn ku si ne sa qualification nekk sa loxo morom mais actuellement ñaari ASC yëpp qualifié nañ kon match bi benn point bu ndaw rek moo si nekk mais li si des lépp passé na so ku ne bëgg nga am ndam si jour sa kaw mais à leen li jeex na bi ma waxee tamit damaa waxaat baamtuwaat loolu

mais gagné bi li ñu koy bëgg-bëgg dañoo war a jiital fair play te waruñ noo sàmm tey ba nga xam ne duñ ni neewtaanu Mboro diggante ASC Jàppo ASC Kër Paare Kane ñoo ko yàq parce que yaakaar naa ne ASC Jàppo ak ASC Kër Paare Kane seen diggante diggante ASC Moulay Fall Kër Paare Kane moo gënoon a metti fuuf te actuellement diggante buy ritax diggante bu moo ko gën a ritax kon tey diggante boobu dañoo ñaan yàlla mu gën a ritax parce que man tey grand sané bee xëy na de jox naa ko cër boo xamante ni yaakaar naa ni sax amaana doom sax mën na koo bañ parce que dama koy jàppee comme sama kilifa yaakaar naa ñaar regroupement ASC Kër Paare Kane yëpp këram laa ko defee te xam naa ne neen ko dirigeant wu jàppoo la mais dama ko ni xam naa ne dirigeant wu jàppoo nga mais xooleewuma la bët boobu man dama jàpp ne actuellement kër Patekan li ko fi parce que kër Patekan képp koo xam ne dem nga ba nga am fa sa kër boo xam ne titre yaa ko moomal sa bopp man tey awma ko fa kër famille laa dëkk te tey amaana fan laay dëkk ëllëg moom am na fa am fa njaboot te tey njabootam a ngi nii tey kenn mënu koo génn si ñun muy tey bu ñu wax ay ibu ay doom ay papi si ñun ngi dox ak waa kër Patekan bu ko neexee ñu conseil te kooku bu taxawee ñun ruus nañ di def loo xamante naka su dul noonu la kon loolu maa ngi santaat di jégalu kàddu bu amee dara lu si jubbu na ñu lu dëng ñu xam ni li ki wax moom matul ci jégalu ko ñun ñëpp. merci beaucoup merci président El Hadj léegi ñu jox président Sané. <laughs> voilà asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ah. di nuyu le président Alpha Sow di nuyu le maire euh, El Hadj qui est un ami le maire euh, Lamine Diakité, qui est aussi un ami. Euh, non, je ne vais pas t'appeler le petit maire aujourd'hui parce que je suis en face des caméras. Donc, c'est mon ami. Donc, de nous, la presse, euh, à travers le Vital TV, de nous, de votre présence. De nous, le président Elage Mbaye, avec Moussa, de nous, Diop, président de la commission des finances. De nous, le secrétaire Issa qui est également un ami di nuyu gars yi mu àndal fi El Hadj Cissé Cheikh Faye eh, Mor Sall di nuyu mon ami <laughs> Lahad Mbaye donc di nuyu ñëpp ah. euh, kon ni ko El Hadj woon waxee man yàgg naa ci mouvement navétane yàgg naa ci lool sax football naa nekk naa coach ba nekk président ainsi de suite donc je connais énormément assez bien le mouvement navétane je sais que Navetan, ça rime pas avec violence en ak violence de je suis un peu à cheval entre les deux ASC Moi, ASC Kër et ASC Diapo. te d'abord, rencontre euh, rencontre bi pour moi, pas ko parce que damay il y a 25 ASC au niveau de Mboro ce sont les deux ASC qui ont été convoqués et qui convoqué été rencontrés pour nous voir. ça veut dire que ce sont les deux ASC qui ont été rencontrés alors que war nous on habite le même quartier on a le même chef de quartier donc war nañoo mën a ànd quoi ma jàpp ni ma personne devait être un facteur dissuasif de violence entre les deux les ASC parce que je suis de Kër je suis dirigeant mes enfants jouent à Cœur xam nga ñooy tàggu ma ba sama e, temps yi ibu bu ne pa dama bëgg football fan laay football ma ne ko foo fu la neex dama football mais su ma nga football kër paate kan foofu nga dëkk parce que je dis que navetaan problème koñ la waa jàppoo am na ñoom si mere woon sax ma leen saa il habite kër paate kan il va à kan man dirigeant la mën naa diriger fu ne les joueurs de kan chaque toutes les nuits sama gundu ma jënd jox leen ñu toutes les nuits su ma xëyee le temps en temps Madame Sen seen entraînement elle a joué pour me témoigner Je ak joueurs yi wax ak dirigeants yi conseiller moi je crois que c'est mon rôle quoi hein, en ce moment pas plus tard que que demain, Madame dem euh, terrain fii jàppo euh, bi ma coach je minutes 10 minutes avec les dirigeants c'est sur le thème que j'ai discuté ma c'est une rencontre de football, c'est 90 minutes de jeu. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires de quelques minutes. Mais c'est un comportement, il y a un jeu, c'est un comportement sur le terrain. Le comportement des dirigeants, ça peut influer sur le comportement des, des, supporters. Donc, nous devons nous comporter devant les, les, les, les supporters. Parce que les enfants, c'est la classe moyenne. Nous savons qu'ils ont en avait ces que là dina wax euh, ak supporter ou euh, Jàppo dina wax supporter u Kër Paate et ça je ferai le le le truc là aujourd'hui bu ma kii dinaa dem entraînement Kër Paate Kan wax ak j'en ai parlé avec les les les les les joueurs et même les les supporters de l'ASC Jàppo wax naa leen violence wax même ASC Jàppo ma ne leen man qui me ki ma gis ngay bi man gens de mon gendarme ñu jàpp la yóbbu la donc di tey dinaa dem et je ferai je jouerai ce rôle là de waxtaan ak euh, joueur que Pathé dinaa waxtaan ak dirigeant yi dinaa waxtaan supporters vraiment pour que la paix règne dans ce dans ce dans ce ce match là. et pour toute la saison au niveau de Mbor je vous remercie. voilà merci beaucoup. Euh... Michel le maire. ah kon dégg nga ñaari président yi li wax te yaakaar naa ñaari président yi li wax dal na xel euh, donte xam naa président Omar nee na ñu may ko mu wax ci minute rek. inshallah Omar acha merci beaucoup euh di wax ni ñaari ASC yi yalla xam na ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bay parce que dañoo bokk fañ jóge wax ngeen ko fii yéen wax ngeen ko kon donc réeroo yu ndaw yooyu am damay ñaan rek man damay ñaan rek defal ñu sutura ba liñ ci nit ñi di xalaat ak comme ni ko président Patakan bi bu mu am nañu ruslo. waa Mboro yaa wax loolu ba li ñuy ba waa Mboro li ñuy yaakaar duñ ci gis dara effectivement loolu mën na nekk te am naa yaakaar ni aussi dana nekk. beneen bi ci topp aussi yéen mairie parce que man dama koo jooy balaa maa dugg zone dafa am lu ma jooyee jooyee jooyee jooy bay bay bëgg a dee mais comme mënuma accéder foofu maa ngi fay doog a ñëw nii. waaye yéen li ma leen di wax mooy bu bii di ñëwaat comme affaire yi daanaka jeex na beneen. Euh, beneen bureau bii du ñëwaat ci zone xaw ma kan mooy nekk président ba waaye yéen waa maire dama bëgg ngeen dimbali ñu ci benn affaire bi nga xamante ne nii dafa manqué zone ngeen ñaanal ma ko jàppale ma ba loolu mu mat parce que mën ngeen ko parce que dafa am lu ñuy wax dañoo ne A ne S ne C mais C boobu noonu dañ koo jël rek sànni te c'est très très très très important même toogaay bii nii rek dama cee gis ni tey see boobu bu ñëwoon fii nii man mun naa fee joxe benn seen léegi léegi léegi mu mu régler problème bi yàlla xam na loolu. rawatina aussi am nañu benn bisu fële ca marché muy foyer des jeunes mais loolu kon pourquoi pas see bi mu dugg ASC bu nekk da ngay def euh, sa troupe théâtre ñu joxe benn thème thème bi du génn ay non violence du génn ci ay mbooro ñun ñoo ko bokk. du génn ñun ñëpp ay xarit lañ du du génn ñun ñëpp on est des frères loolu kese mooy doon thème bi civisme développement participation kese mooy doon thème bi ñu teg ci tamit trophée bu ama ama ama ama am solo yaa ngi dégg day jar tamit ñu ne AC bu amul troupe théâtre dafa am lu ñu lay amande bu yeboo joueur ñëw joué ko bu yeboo président ñëw joué ko mais dañu ñëw ñu participer ci loolu c'est très très important. Euh, li may wax rek après ma bàyyi kàddu gi ak le maire mu tëj maire Lamine Diakhaté Euh, gën a ñaaxaat rek euh, surtout ñi nga xamante ni tey jii ñooy def info nawetaan muy ñoom Abdoulahat mi toog ñoom Baara Seck yaakaar naa ne fekkee nañu euh, jotaay bi bëgg nañu tey ngeen communiquer ci bu baax ba Mboro gépp xam ne waxtaan bu mel nii am na waaw te ñu ngi séntu ci ASC yi non violence parce que démb station Total sax seen gérant bi daf maa woo démb ñu ma président il paraît que dimanche di ngeen am marche boo xamante ne am na ñu ma interpellé sax ni ma est-ce que doo tëj sa station bi jouru marche bi ma ne ko non non jaru ko yàlla miñ tiim xam na loolu ma ne ko jaru ko ma ne ko njaboot gi suñu njaboot lañu dee ñu waxtaan ak ñoom ci ni ñu war a waxtaanee ak ñoom beneen bi tamit dinañu joxe ay instruction ci terrain bi incha allah li nga xamante ni mooy RDG bi bu ñu fubalee ba pare du ñu tëjji benn porte ñaari porte ñoo nekk si biir. Euh, grille de protection bi bii côté stade ak bi nga xamné ne moom côté porte bu mag bi bu ne deuxième mi-temps bi kër ci côté totale bi bu match bi jéxé nañu porte bu ndaw bi équipe kër dem bu ne japo mo fété côté cité 2000 ñu ko porte bu dem kenn ku nekk jaar ci benn voie mu dem yoonam mais match bi du jeex mukk ñu ubbi porte yi ay di dugg si duñu ko nangu suba waaw parce que lu ci bëri match day jeex keroog match contre Magadan bi looloo ko indi match dafa jeex ñu ubbi porte bi supporter yi daw dugg ci biir mu commencé indi benn bu ndaw ci biir man ne nag désormais loolu dootul amati fu ASC footballeur te ba pare service de sécurité yi fa nekk mooy la gendarmerie day ñu vider terrain bi ba mu set wécc ñëpp génn waaw station bi tamit service d'ordre nee nañ dinañ ñëw ba ci station bi ñu taxaw foofu après le match képp koo xamante ni def nga loo xamante ni waroo cee def di nga am lante ak yoon te yaakaar naa ne sunu njaboot lante lool waru cee mën a am waaw ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla nañ yàlla maye fekke ak wér ak tal suba suba insha allah bëgg nañu ñii fekkee waxtaan wi suñu delloo ci quartier yi nañu joxe information bi nii nga xamante ni noonu lañ ko bëggee suñuy ñëw terrain suba yéen ñi fekkee waxtaan bi ku ko yàlla man loo na nga teel a ñëw ànd ak sa équipe ba koo gis mu nar a nga ne ah waxtaanoon nañu démb de attention parce que man ngaa bañ a ànd ak équipe ba keneen ñëw fekkewul waxtaan ba déggul waxtaan mu ñëw yàq liñ defaroon lépp waaw loolu daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp baax di bàyyi le maire lamine mu tëj li nga xam te ne moom mooy science bi jërë ngeen jëf merci beaucoup <laughs> Uh, merci beaucoup salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi delloowaat di nuyu ñëpp ku si nekk ñu nuyu la sa tur ak sa sant di jiital sa nuyoo bi monsieur le maire de la commune de Mboro Abdallah Tall bi nga xamante ne tey ci kàddoom la ñuy waxe fii donte suñu ay jëmm ñoo fi teew di ko remercier ci en euh, encadrement bi mën naa ko tuddee noonu mais aussi ci confiance bi nga xamante am na suñu ci jotaay yu mel bu amee mu yabal ñu ko kon yàlla nañu yàlla dimbali ba li nga xamante ne moom la ñuy yaakaar suñu tamit ñu mate ko may remercier encore une fois le maire El ndaxte moom dafa baax rek ñun ay produits yu nawetaan lañ du leneen xëy na bu doon jàng rek du ñu toog fii mais ay pur produit yu nawetaan lañ ñun lu ñu am rek nawetaan moo ñu ko jox te bu ñu taxawee ci biir nit ñi di wax sax nawetaan moo ñu ko may te moom mii loxoom génn si dinaa fàttaliku tuuti bi muy nekk président dernier année yi bien que moom moo nekkoon président mais maa nekkoon vice président daanaka même son cachet maa ko doon denc sama kër la doon nekk kon yàgg na moo buñ ma waxé lu melni rek euh sama xel day dal su ma sama wet kon elage ñu lay sant ci sa nungu bi ñu nungu taw fi déjà mais aussi ni nga téyee jataay bi tam ñu la ci sant di remercier aussi le président de la zone Alpha dañ koy féliciter euh n'est pas président de la zone qui veut tay nit bëgg na nek président doonuko nit nek bëgg na nek président doon ko té matuko mais gis nañ ni esprit d'anticipation rek bi mu am rek matale na ni yaakaar bi ñu am si moom mi ngi koy mi ngi koy mottali yàlla na la yàlla mottali ba nga sax mandat nga def ko lépp sedd guyu euh, li ñu lay félicité tamit bokk na ci li nga am réussite saa boo soxlaa sa njaboot nga mën leen a jot ndaxte forcé wuñu woon benn président tey mu teew fi mais waxuma le président mais commission or comité de supporters sax da nga leen indaale loolu tamit euh, management la boo xamante ne dañ koy rafetlu nga ànd si ak sa équipe bi yëpp ñuy remercier les présidents des des ASC muy ASC Kër Paate Kan Cheikh nuyu nañ la bu baax di nuyu aussi suñu grand Sané nga xamante ne moom sama doom bàjjen la lu nekk la may wax mais li am solo si jataay bi rek moom mooy li ñaari équipe bi wax man pour man moo ëpp solo sax li Alpha wax walla li président walla li monsieur le maire nar wax boo gisee ñu jox ma kàddu ma delloo leen ko luñ fi wax dañ leen ko nara a obligé mais su nga jëlee engagement rek day mat day li ñuy def moom mooy li tubaab di wax suivi suivi mooy la nga waxoon loo ci def ak loo ci deful te gis nañ ni wax ji mate na li si gën a neex nag moom mooy historique bi nga xamante ni am na ci diggante ñaari ASC ñaari président yi wax suñu demee ba ñu président jàppoo mi ngi dëkk Kër Paatekan doomam di football Kër Paatekan loolu dafa amul sax lu ñu ci mën a waxaat suñu demee ba président euh, Kër Paatekan ni man su ma amee match kër président jàppoo laa koy laay regroupé man dama xamutul lan la war a wax

mbooro moo am bis bis boo xamante ne am nañu si tiit mais ñun tiituñu si ndaxte ndax ñu si rek moom mooy engagement bi nga xamante ne dégg nañ ko ci ñaari ASC yëpp ñu leen woo ci sportivité ndaxte dañuy wax adversité mais non animosité animosité rek la ñuy daw ci mais adversité mënut a ñàkk ñaari nit mënuñu mënuñu bokk benn bër di ko xëccoo kenn ku ne da koy bàyyi sa morom dañ koy xëccoo ci mënul ñàkk mais nañ ko def dans les règles de def lépp li nga xamante ni yaakaar nga ne boo ko defee gagné ba mu des violence leneen lépp yaakaar naa lépp loo xam ne règlement nangu na ko rek ASC yi ñu ngi leen ci ñu ngi leen ciy xaar leneen tamit ñoom mooy ñu sàmm relation yi ndaxte li ñu wax tamit sàmm rek moom moo ci war ay nit bu ñu jaxasoo benn jaxasoo bi benn ngont 90 minutes vraiment warul mën a yàq seen relation kon tamit dañuy sàmm dañuy woowaat supporters yi surtout ñu sàmmal dirigeants yi relation yi nga xamante ni moom la ñu am seeni njaboot seq ko kooku tamit dañ lañ ciy woo te loolu lépp tamit ci turu monsieur le maire lañ koy defee euh, di wax rek ne tamit euh, la mairie bi ñu Alpha woowee wax ñu jataay bi ni mu war a demee interpellé nañ ci ay nit bokk nañ ci la gendarmerie parce que tey jii lépp lu sécurité publique ci seen loxo la nekk waxtaan nañ ak ñoom comme ni mu ko defee ñun tamit defaat nañ ko noonu wax leen li ñuy xaar ba jataay bii sax dañ cee war na indi yabal yabal ndaw mais dernièrement la commandant bi woote xam ne dafa am ci lu mu nekk mais moom moo bëggoon a fekkeel boppam jataay bi ndax gan la ci dëkk bi boobu léegi kenn woowuñu ko nee tey bi ñu ko wecc lu mel ni moom moo bëggoon teewal boppam kon ñu xam ne la gendarmerie interpellée te disposition yi ñu ci war a jël yëpp dinañ ko jël pour suba dëkk bi na mu meloon mu continuer ñuy wax ne tamit aussi on a interpellé aussi la zone ndaxte bu ñu interpellé la zone c'est pour que mu matali mu doon li matal mbam moom mooy képp koo xam ne da nga nekk dëkk bi di def luy yàq foofu dëkk bi vraiment que la zone aussi prenne toutes les responsabilités loolu tamit on a interpellé la zone pour que ñoom tamit ñu sàmmonte ak règlement bi nga xamante ne moo nekk seen ay loxo pour nga fomm yi nga xamante ne xale ñu ngi ko def dëkk bi maire nee na pour ñu gën ci ñu gën ci bàyyi xel mais aussi ñu interpellé les deux ASC ndaxte ñoom ñooy def le spectacle te ñoom ñoo ko mën a neexal mais aussi ñoom ñoo ko mën a yàq kon interpellation bi rek moom mooy loolu la maire waxoon nañu leen ko nañ leen ko wax ndax moom mission bi mu am mooy fexe ba ndaw ñi mën a foo di ko fooyee foo xamante ni dina méngoo ak yeneen dëkk yi ñuy seetaane niñ mel tey ji liñ ci mën a gis dafa gis mi ngi ci mi ngi ci loolu tamit ñu ñëw sàmm ko ba nga xamante ne Mbour dina nekk exemple ba mu nekkoon vraiment loolu moo nekkoon kaddu xamante ne maire yabale woon na pour ñu wax ko xam naa ni ñun lot nañ sax ci ci wax ko waaye euh, ñu ñu résumé ko noonu rek que ne maire daal nee na il est derrière sa jeunesse lépp lu nga xamante ni daal jàpp ngeen ni war na ko def pour que bis bi taaru dina ko def pour que moom ñu def ñu dugg si ak bisimilahi rahmaani rahim génn si ak alhamdulilah. egg nañ ci sànne suba incha allah rabi une délégation de la mairie dina ñëw ànd a yéen ci bis bi wan leen ni yéen yéen moom yéen ko bokk xam naa ne monsieur le maire El Hadj ñu ngi lay interpellé euh, délégation bi boo ko jiitewul tamit xam naa ni doo ko sori ñu xool ñëpp ñi nga xamante ne ils sont de la mairie.

bañ leen dégg fi nga xamante ne fa lañ dégg tale yëpp jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu dee monsieur le maire yi amul beneen kii ñu def ñaan te yëkkati jataay bi rek di ñaan yàlla ñu dugg si ak bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilah waaw bon <laughs> waaw bu day wax noonu mooy interpellation bi quoi pour les ASC la dimension culturelle bi manque ci spectacle man sax dama ci yokkaat beneen damay wax la dimension ASCD parce que aussi am na une développement boo xam ne dañ ci interpeller les ASC dañ koy naqarlu aussi au niveau de la zone comme ni ñuy ni ñuy sawar a jël si subvention yi ñu gën di participer su les actions citoyennes parce que bi ci mujj rek mooy mooy bi ñuy def lee nettoyages au niveau des écoles ASC e bu nekk rek ci koñ nga nekk te koñ ba nga nekk am na loo xamante ni maire war na faa def mais tamit ña fa nekk ñoom rek ñoo ko ci mën a suppléer ñu leen di woo la dimension culturelle xëy des initiatives seront prises d'ici l'année prochaine benn comité boo xam dina réfléchir bu ko zone dul def bu ko nawetaan dul def tamit laata nawetaan moo ko war def bu ko deful tamit ñu fexe ba am une dimension culturelle boo xam ne day anticiper sur sax le mouvement nawetaan bu nawet euh, bi ñu def fa un championnat boo xam ne dina tax li nga wax mën a nekk ñu ne ku bokkul ci championnat boobu doo mën a bokk nawetaan yi peut-être que dina jouer son rôle bi mu war a jouer vraiment ñi ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax kan mu def ñaan saana moom def la wuñu ko ñaan kon di waxaat monsieur le maire rek mu defaat ñaan ñu ñu yëgati jadaay monsieur le maire defal ñaan ndigal la defal ñaan amul problème kon merci beaucoup ñu defaat ko rek ci ndigalu monsieur le maire la ñu dakité ñu defaat ñaan fatiha falla fay salatu fatiha bu way man ni ma ko waxe woon ñu ubbee ko jàmm njëkk ci jàmm mujj ci ñu suba football ci ci 你的事儿不咋多。